affaire yooyu ko farax faraxee quoi parce que sama ak yow. c'est la première fois. waxoon nga ma depuis xawma ban combat la à l'arène nationale nga ne grand bi seet si ma la inshallah ma lay baye xel bu baax. mais dama bëgg ñu del ci waat ci bi ngay mbapat. baña a parax paraxee bagage yi jël ko étape par étape. ban année ngay fàttaliku dëggantaan ma commencé bëri ay combat choc bi ngay mbapat ay combat yoo xam ne danaan am coow ci li ngay fàttaliku. waaw combat bu mu njëkk a bëri si bopp mu gën a metti man ak njàppaan la woon. muy mu nekkoon doomu Bacéras nekkoon mbëru Bacéras. ok mu nekkoon combat boo xam ne daj naa si lu metti lu ne. ok parce dab nañ ma ak ay saret génn ay jam. Mhm. dóor ma ay xiiru fas. mu métti woon si man torop mais comme lu may wax rek man fitu gaynde mooy nekk si man chaque jour. ba arbitre soufflé dama ne ko Bathie Seras du dugg dawal ko charette bi duñ dugg. Mhm. man ak yow ñooy dugg ma wan la lan mooy mbër ak mbër nan lay def. Mhm. te buñ duggee ci géey bi dama ko faa wane. maanaam. dama ko jàpp daan ko daan jël boo xam ne amul sax sept secondes yu mag. da ko jàpp daan ci ay secondes ci ay secondes. ma pare même pas deux jours. Mhm. Mariama Diop joxaat ma benn booy bu ñuy wax. Euh, Saka Dior 2. Saka Dior ma fekk ko ba Esat Ndiarène. ngeen bëree Ndiarène. Ndiarène boobu aussi ma daan ko ci deux minutes. Ah, ah. su ma paree foofu ñu jox ma benn booy bu nekk si bébé Saloum ñu koy wax jéeju. jéeju ma daan ko mu am fra mu am fracture. moom nga daan euh, fii wala. moom laa daan bayaalu daaru. bayaalu daaru terrain daaru terrain daaru. moom laa daan ba pare mu am fracture. ak après ma ñëw. nekkaat ci mbapat yi bëreeg Amet daan ko. Amet Seras ñu koy wax Amet Orange ma daan ko. Mhm. ma pare bëreeg euh, Madi ñu koy wax Tyson ma daan ko. Madi man Madi moo dëkk yi méngoo. ma daan ko. Mhm. ñu ñu dem ginnaaw raay tournoi six personnes ma daan Omar Ndiaye. Mhm. ma daan Caatu euh, Caatu Seras. ma daan quart de finale ñaabali. ñaabali ñaabali. léegi nag ni nga prouvé ci bi ngay mbapat parce que déjà man. alliance man du wax loo xam ne wóoruma mhm. man mbër daf may woo des fois ma grand maa daan diw ak diw ak diw mais du ma du ko seede mhm. mais yow dama fekkee bi ngay nekk xale bu ndaw di mbapat mhm. yaa ngi may dégg te arène bi dafa am yenn wax yu may dégg yoo xam ne tey bokk na ci li tax ma ne naa ñëw jàkkaarloog yow gars yi xam parce que tamit ni mën na la seeti fekk xamul la du xam lan la lan la la war a laaj da nga mbapat sama kanam nekkul un gars très agressif mhm. lutteur boo xam ne arbitre daan sifflé nga songu nit ki surtout gaynde bi ngay wax mhm. boobu laa ko daan gis mais gëj naa ko gis ci yow mhm. yaa may dégg nga mbapat durant des années bokk nga ci ci sa génération parce que du yow yaa ci njëkk a dugg ci arène bi parce que tey bu ñuy wax sa génération dañ naan euh, Alliance Baldé Thiatou Fora ay Bou Siteu ay ay ay Thiatou Rebeuss mais ñooñu da leen jiitoo ci arène bi lu yàgg Il y a des années parce que 2012 nous dugg ci arène on est en 2020. Donc mm-hmm. ça fait 8 ans. def nga 8 ans ci arène parce que mon premier combat ba ma jëlee combat de CNG pour am licence dañ ne ma say at matul. da ngaa après je suis si ma licence. mais après dama def jugement. pour mun deux ans sumay at pour mun licence parce que lekk naa xaalisu waa ji ci laa defee jugement li jënd samay këyit maa ngi fay daaf plus de trente mille pour am carte d'identité ci laa amee carte dem defar licence bu përee sama premier combat mu nekk luus mu nekk SR. kon boobu boobu nag boobu yaa ngi yaa ngi am 16 ans yokk 2 ans pour mun a am licence parce que boobu lekk naa xaalis ba pare te sëñ boobu dégg na alliance dégg alliance. Mhm. mu ngi bëree quatrième combat mais li ma fayoon fay ko sax spécial. Mhm. parce que dafa ma jox trois borog même pas six jours ma jaay trois borog. Mhm. maa ngi suy nuyu suma euh, benn maire bu ñuy wax Baye mbay mu nekkoon maireu Thiaroye. Mhm. ma ñëw mu jënd ñaari borog jox ma trois cent mille si saase. mu nekk taalibe. Mhm. yàlla na suuf woy si kawam yàlla na ko suñu borom xare àjjana waaw gaañu na mu nekkoon ku baax nekkoon taalibe. waaw mu jëndoon borog yëpp ma ñëw sëñ Mourou ñaar dolli ma beneen cent mille.

Mhm. par la suite mhm. après man damay gis alliance bu duggee ci bi il se donne à fond mais résultat bi résultat bi du demee non man boy c'est ci arène bi euh, quatre victoires nga signé ci arène mooy bon non ngay wax sa diggante ak Luus bu dee euh, recours dafa génn ñu delloo la victoire après qui nga fi dan euh, Guy Ndioro Colobane dund Bébé Sathiès Bébé Sathiès ak ak ak dund bu ak l'autre show numéro 2 daan naa ko lamb banlieue fekk nag jour boobu ñaari lamb daa amoon gars yi dañ doon tëgg Ibou Mar mu nekk sama deuxième combat bu ma bëree sëñ Modou Niang ci laa jóge ci combat boobu mu jox ma lamb stade euh, ouverture saison saison man ak Thiatou Saloum mu nekkoon combat boo xam ne mu nekkoon combat boo xam ne moo gënoon doy waar sama combat arène mhm. parce que mu nekk combat boo xam ne maa ngi doog a bëre mhm. ma ñëw ñu def li national ministre de sports toog mhm. ñëpp toog mu nekk làmb boo xam ne nekkoon na làmb boo xam ne sama carrière làmb boobu dafa bokk ci lu ma gën a lancé mhm. waaw ñàkkoon naa ko mais dama si jógee ma am combat boo xam ne macha allah dëggantaan euh, gars yi nee nañ dóor mu daanuñu fan lay jóge alliance des fois nga taxaw raaj raaj raaj sa diggante ak Sa Thiès mhm. on a vu un coup berkib su ma juumul këng booy bi wàcc C'est vous ak Pareil, da vous ne pouvez bu metti vous mais coup bi kenn xamul fu mu doomu daanu yi lan la waaw doomu daanu yi depp xalé la dama xalé di mbedd comme lu wax rek man dara sama tay mën naa ne alliance mënoon na nekk si lu ñaax fayda wala dëgg parce que ànd ku ne tey nit da doon wax sax alliance ñi muy àndal baa def def non non mm-hmm. bëggul def ko def mm-hmm. man dara dara taxul ma ragal man du ma du ma ragal ba illaa yow mi diini man comme lu may wax rek fitu gaynde chaque jour mooy nekk si man mhm. bu arbitre su may noo toll dinaa dal sa kaw lu ma ci góobee gar dëggantaan euh, mais benn instant booy set malgré la fekk que résultat yi demeewul noonu à chaque fois mën naa ne mbëri dañuy laaj nañ ma jox alliance Baldé nañ ma jox alliance Baldé te booy seet booy yi ëpp tur ci booy yi ñoom ñoo lay jël booy seet sa digganteeg euh, may xadaa ba muy taxaw Mbaye Khada mi ngi commencé am coow mais bañ ko ne Alliance Baldé ngi nii dafa jël yaa may dégg nga jóge ci ñaak combat boobu caatu rëbës ko ci booy yi ëpp coow ci booy ñu ne ko Alliance Baldé ngi nii mu ñëw jël ko mais examen de passage yi combat bu mu gën a métti sama àdduna mooy maag caatu rëbës ok parce que lu tax mu métti ma promoteur bi su ma waay la woon si xam nañ lu ne ci àdduna foogoon naa ne moom ñëpp ñooy def loolu mais pas moom muy Assane Ndiaye mhm. màggalu Touba

mu nekk làmb boo xam ne ba ma ñëwee si bunt bi dañ ma atte ñàkkal Thiatou Rebeuss dugal na huit personnes man ma ñëw dugal cinq ma ñëw fu ma war a teg sama cumukaay ñu jox ma numéro quatre ma war a dem quatre Cheikh Diaw ne duma dem quatre trois deux laay dem parce que comme ñoom dañ ne leen booy bi fii la war a teg cumukaayam pour mu am ndam kon ñëw naa dañ koy changé alliance fee la war a dem ma ne Abim Ndiaye garaaw nañ ko teg fee mu dund si loo xam ne daf ma bett daf ma sokke dafa nekk loo xam ne xalaatu ma ko woon mais nag comme lu may wax rek alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla. nga bëre ñàkk combat boobu. ñàkk ko même pas trois jours ma amaat combat. waaw non mais léegi léegi alliance nag léegi man gis nga ay fitu gaynde yooyu noonu. Mm-hmm. des fois tamit est-ce que du la que du la gaañ parce que euh, boo ñàkkee combat. Mm-hmm. est-ce du laaj tamit nga jël lu oyof jël lu yem. mais yow maa ngi fi ñëw nga ne ma sama combat caatu caatu caatu caatu fora taxaw na caatu fora moo gën a dee ci booy. est-ce que xam nga lenn. caatu fora man maa mun fukk non waxuma la ay waxu pour ay micro bi ay kii Thiatou Rebeuss daan na ma mais barke Serigne Saliou maa ko mën Thiatou Fora moo daan moo tax ma bu ko jël pour confirmer ma wan leen ne kee moo daan Thiatou Rebeuss man maa koy daan parce que maa ko mën yaa man Thiatou Thiatou Fora incha allah dinaa la wan ne man maa ko mën beneen alliance mooy ñëw bu bees li nekkoon ci man lépp am na ay doomu aadama yu si jàpp pour mu deñ te am naa yaakaar ne lépp dina deñ

doomu aadama day def benn affaire mu toll moment boo xam ne daf koy réccu parce que ki nga koy def amaana suñu borom ni baaraam yi sutantee noonu la doomu aadama sutantee kooku mënoo ko raw ci dara parce que li may wax rek yaayam dafa liggéey ci kër baayam te maanaam ku yaay liggéey sa kër baay da ngay jéng rek waaye doo daanu te man amaana mun naa jéng rek waaye du ma daanu parce que suma yaay jàmbaar la te jàmbaar lay musa doon te man xam naa ne sama yaay jàmbaar barki maam Cheikh Fall maa la ko bu dul làmb ak lu mu munti doon man incha allah su ma guddee fan damay am su may morom ki gëm naa ko te damaa am mag boo xam ne amaana bu nekkoon taaw wala mu nekk mu nekk milliardaire man dépassé naa fii muy Baye Fall parce que Seydou Babou xam mais nag waaw yàlla baax na daal mais beneen sax damay ñëwaat ci feneen ah dama naan Ziz Alliance euh, mbër nga de dëggantaan mais nante nga quoi benn instant man dama dama siib loolu quoi Agence dafa boo xam ne nante la quoi dafa mën a def ak a def ak promoteur bi mën loolu lan la maan boobu lan la man loolu lañ ma yare dañ ma yar képp koo gis da nga koy def comme sa bopp parce que àdduna kenn xamul ku lay jëriñ non mais lan moo tax foo dem bokk man loolu laay laaj da di koo xam ne nante nga foo dem da ngay bokk waaw mais noonu la foo dem da ngaa war a bokk boo dee nit foo dem da war a xam da ngaa war a bokk non yombul parce que comme lu may wax rek mbay ñaa bër ki dem dafa ma woo téléphone wax ma loo xam ne du ko wax sax ñun bokkal ndey ak baay mbay ñaa international mbay ñaa joueur sénégalais karambooj moo ma jëndal dàll yi moo ma sol ah, tu vois sama xarit la sama kàppoo la sama bër ki dem dama woo téléphone ma ne ko dama am rax buy fubal mu ne ma ban pointure lay sol ma ne ko yaakaar naa 44 lay sol mu ne ma man 44 lay sol mu filma dàll yi wan ma ko trois paires ambale ko ne GP laay xaar kon kooku suma waay la ak leneen ak leneen loo xam mënuñu ko wax mhm. kooku kooku Baye la suma waay la muy karambooj muy mbay ñaa mhm. Idrissa Gana Gueye dañuy déggante mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm man daal xam nga loolu tamit dafa nekk nit koo xam ne maanaam am na loolu liggéey wala fekk am na lu nekk ci yow loo xam ne xamoo ko mais am na ñoo xam ne dañuy repérer dañuy xool étudier xam ne ah booy bi kat telle chose mi ngi parce que c'est pas évident nga nekk benn booy bu ndaw am relation yu fàttali na ak grand grand joueur yi RTC, mm -hmm. de fois acteurs yi promoteurs yi mais loolu lan la nii mën nga cee dem si waat tuuti parce que déjà man dama lay gis naa la ci ci vidéo wu Nit Dof gis naa la ci mhm. Nit Dof kii mhm. eh, ragal du jéggi raay c'est l'un des plus grands Sénégal dëgg la Nit Dof suñu waay la depuis xale la caaroy la doon ñëw di ànd ak suñu gara argo ak mbay mbay ñu koy wax matador ok ñoom ñëpp suñu gara lañ seen keppaar lañ yoroo mhm. mais gis nga Fallou Ndiaye lamb bi ma bëre man ak jund ñaari parrain yëpp grand combat bi ak bi man maa ko indi man maa ko lijjanti parrain yi mu tëgg làmbam ak yeneen promoteur yoo xam ne dañ may woo pour am parrain parce que suñu borom moo ma boole ak ay nit yu baax. loolu moom maa ko bëggul woon a dévoiler mais loolu naa ko. suñu borom ñoo ma boole ak ay nit yoo xam ne ay taalibe lañ dañoo bëgg nit. kenn si Paco Jackson taalibe.